war a jeex la 18 bu midi jotee lu ko waral nag du dara lu dut ab procès appel bu ñu jëm le 17 war a dox si diggante usmaan Sonko ak Mame Mbaye gannaaw bañ la attee le 30 mars passé ban condamné Ousmane Sonko ñaari weer yoo xamante ni sursis la maanaam du ko tëdd prison ak amende 200 millions Mame Mbaye Niang nag taxawoon na di xam la rek ne fu toll nii derem set na bay xam la sax ne 200 million yi di dem si këram du ko jox benn mbokkam wante nag daara yi la koy jox ñu jàpp ne nag fa lay yem Mame nag daal di dugal ab appel ngir rek ñu daal di koy attawaat ak Ousmane Sonko di njiital la Pastef lu ko waral nag mooy moom Mame Mbaye Niang nag nee na daan yuñ teg usmaan Sonko dafa bëgg rek ñu gën ko yokku loolu nag tax mu def ab appel bañ daal di koy jàpp le 17 avril bii di ñëw muy procès bu dox Ousmane Sonko ak Mame Mbaye loolu nag tax gouverneur daal di tere rek képp kuy jaay wala gasoil ci biteel ndaxte rek day bañ ku ko utiliser ci beneen fànn maanaam ay manifestation ak di jéem a taal moom gouverneur nag nee na lu ñu mel kuñ ci jàpp yoon dina dal ci sa kaw su fekkente ne nag respecté dogal yu ñu jël.